fourniture essence bi dafa xaw a seer xawul sax dafa seer essence bi kaye seer na livre yi seer na pas d'élèves yi sonn nan affaire yi nan moo tax ñun ñu jël suñuy table ak suñuy lépp ñëw toog fii fas seen di ko waajal pour xool nu ñuy def ba ba ñëpp mën a dem jàngi parce que am réew njàng fa yor bu njàng bi doxul rek dara du baax waaw affaire daal instant fi dul nii commencé école école tey la ubbi ñu commencé teg suñuy table xaar clients yi ñëw ñu jaay leen li nga xam si ni moom lu ñàkk ñu defal leen ko li nga xam si nii mooy loolu daal instant daal affaire daal instant commencé na xaw seer na nag macha allah seer na trop kay seer na livre yi seer na bagage jafe naa am métti na xaw ma xaw ma Covid bi fi jaar moo tax affaire bi mel nii ba léegi xaw ma mais affaire bi ba bi dafa metti parce que gisoo suñu table instant bi boo xoolee yi ñëw ñu war a ñëwee parce que ak parce que tey nii niñ doon waral feesee feesee gun ko ba xam nga xam nga paadi tamit bi li fi jaar dafa bëri màggal gàmm yooyu yëpp bu fi jaaree école ubbi dal seen rek mooy def ndànk mais ñun tamit ñu xam loolu parce que ñun tamit ci loolu dund moo tax ñuy def ndànk di leen woo di kaat da ngay daw di kar ay client di woo nangam nangam ñu lay jànni loolu la nga koy daj mais loolu lépp da muñ xam ne yaa bëgg parce que ku bëgg tamit da ngay nangoo sonn moo tax ñu jël coono yooyu yëpp di ko delloo ci liggéey bi di xam ne loolu moo ñu war tamit loolu moo ñu fi indi waaw waaw xam ñun loolu ñu xam nga ñun loolu ñun loolu mënuñu ci dara parce que ñun dañuy dem jënd ay kaye rek jaay bu ñu demee jënd ay kaye fi muy yokkoo nekkul ci ñun parce fi muy yokkoo bu yokkoo des nag di nga jaay 400 parce que di nga gis koo xam si ni nga xam ne kii bëgg naa jënd mais loxoom jotul gannaawam yow yaay obligé nga perte li nga jox ko te lool amul te loolu am na fa ci fii ci table yi nga ko mën a gise parce que fii ngay ñëw jënd di wax parce que fii boo jënd da ngay waxaale di waxaale ba juboo nga soog a fay mais am na fa ne boo demee ci biir foofu mënoo waxaale da ñëw ñu jox la facture nga dem mais fii da ngay ñëw di waxaale bu la waxee 1000 francs nga wàññi nga waxaale ñun tamit xam ne ñun ak ñooñu di waxaale ñooy ñun ñoo yem moo tax ñu tamit ñu leen nangul loolu waxaale bi mais kay instant bi nii ak livre instant bi nii cher na surtout instant bi livre yi ba si ñu dugal nii mooy yi ñuy woowee didacticos livre yooyu dafa cher boo koy jaay client da ngay nga koy jaay xam ne yow li koy jaay nii xam nga nga koy jaay lii lii dafa cher dafa métti mais mënul ñàkk parce que yow li nga ko moom moo cher da ngay jënd dem Dakar paas ñëw jënd ay bagage leen ñëwaat loolu boo ñëwee li nga koy jaayee li nga am da nga koy jaay pare li nga ci am sax mënul sax juróom fukk loolu moo waral loolu moo ren affaire yokk yokku kay yi livre yi seer loolu la quoi du si ñun fi ñu koy jëndal. ouverture yi daal comme ni ñu ko gisee rek macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax mais comme niñ ko daan defee comme at yi ci ginnaaw ay deux ans ci ginnaaw fourniture yi cher na en plus euh, parents yi yaa ma gën a xam ak salaire yi. cher na cherul parfois di nga jël ay bagage di nga ko jëndee prix bu yomb parfois di nga ko jëndee aussi prix bu cher mais daal ñu ngi ñaan que parents yi que bu ñu ñëwee fii nii di jënd prix bu ñu leen wax rek ñu xam ni que dàkkuñu ci dara loo xam ni dafa cher wala loo xam ni prix bu du ñu aj suñu prix yi daal comme niñ la ko waxee prix yi duñ ko aj parce que lu ñuy jëndee en gros mënuñu ko suufeel parfois di nga gis parent boo xam ne day ñëw mun la par exemple cahier bi ñaata lay jar nga wax ko prix bi mu suufeel sa prix su boobaa dañuy dañuy dañuy daaneel quoi ñu ñaan ñu compréhensif un peu ñu xam ni que bagage yi li muy génnee moo cher Euh, ñu jàpp ci combat bi xam ne ñun ay ndaw lañ ñu ngi soog a door jubluwuñ ci dara suñuy ñëwee fii di jaay pour daan suñu doole la ut benn bunt boo xam ne yoon boo xam ne foofu la ñuy jaar pour mën a avancer dans la vie donc euh, ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu ñëw jënd bagage yi te xam ni ouverture jàppale seen doom yi aussi ñu ngi wax tamit élèves yi ñu jàng parce que ut xaalis liggéey métti na méttiwul parents yi aussi sonn nañ ñu jàppale leen ñu jàng euh, attendre seen objectif pour mën a passer à autre chose. waaw man maay Pape Abdoulaye Gaye di petit commerçant bu antenne yi day ñëw di góorgóorlu di taaba taaba comme ni ko sama mbokk yëpp di defee ngeen xam ko yooyu ñëpp xam ne bu ouverture des jotee ñun ñëpp dañuy ñëw euh, boole suñu doole ak suñu doole ak suñu mën-mën yëpp ñëw daal di lal taabul di fi di daan suñu doole daal. loolu moom nga ñu fekk ni ñu koy def nii waaw jàngat bi moom yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ko bokk di ko jàmbat parce que man mii di jënd rek daanaka damay jàmbat à chaque parce que li nga jëndee woon daaw boo ñëwaatee ren day yokk sa loolu doo xam fan la jógee doo xam si ba xam commerçant bu mag bi si moom moo ko yokk doo xam fa muy jógee fa la yokkoo doo doo comprendre quoi jàngat gi daal mënoo wax ni fii la fii la fii la fii la yokkute bi jóge ñun niñ ko mën n ko niñ ko fekkee faa ñu jëndee ko noonu ndax dafa nekk boo xamante ne ñun si la ñuy yëngatu euh, à chaque bañ ko daanaka ëpp na 5 mais mosut a mel nii mu mel ni mu daaw ak ren parce que daaw ak ren moom daanaka prix yi dafa gën a yokk sa daanaka dañuy yaakaar ñun ñu jaaykat ñun ñoo ko yokk alors que ñun yokkuñu ko fa ñu koy jëndee fa la yokkee dafa te bu yokkoo foofu il faut que yow tamit yow mi utaat bénéfice nga tegaat a pour mën a a gis sa bopp moo tax yokkute gi di am chaque fois mais gënaluñu quoi parce que bu ñu sañoon dañuy jaay prix boo xamante day yomb si clients yi koy jënd ak parents d'élèves yi xam nañu dëkk bi ni mel dafa metti sa loxo tamit ñëpp seen loxo jotu seen ginnaaw moo tax daanaka dañuy bëgg muy gën di sedd seen kaw quoi mais nag dañuy jéem tous les moyens possibles nag mais fii la ñuy mujj ak ak ak ñoom daal day échec chaque jour. waaw xam nga kenn du jëndee jugam di jaayee jugam tamit bu fekkee bëgg ngaa dégg dëgg mënumaa dem ba Dakar paas dem jënd samay bagage foofu noonu teg ko si oto euh, fay transport indi ko ba Thiès di jaay di jaayee la ma jëndee woon Dakar quoi daanaka transport bi ma tegoon si bagage yi sax daanaka génnul. donc moo tax gars yi ñu comprendre que ni ñun mënuñoo jaayee lañ jëndee woon il faut que ñu teg si lenn pour mën koo jaay sinon jagul ñu lal suñu taabal sa gis nga fii dañuy nekk si suufu naaj bi mu tàng bay bëgg a ñuy ñuy lu ne fii bala nga am client yi c'est tout un problème dem di dab client yi fële di leen koj naa leen kaay leen ma jaay leen ñëw leen maa gën a yombale boutique bi maa gën a yombale diw loolu lépp xëcc client pour mu ñëw si yow nga mën koo jaay la sinon doo doo jaay da lal ba lalli daanaka doo fi jëlee sa benn benn benn mu wàññeeku si ñoom ba ñoom bu ñu ñëwee dañuy jaayaat ñu tam ñu mën ñoo jaay prix bu yomb loolu nag yaakaar naa ne gouvernement bi moo si mën a jël ay matuwaayam parce que ñun bu ñuy jooy si moom nag lañ mën a jooytoo donc lu mu si mën a jàppale mu jàppale si commerçant yi parce que bu ko defee bagage yi gën a mën a yomb jaay bi gën a mën a neex parents d'élèves bi gën a mën a gis seen bopp si jënd bi ndax ouverture day metti sa gis nga weer bi ñu génn weeru màggal la weeru gàmm la weeru ouverture des classes la muy ñetti événement yu mag yoo xam ne dafa tombé si si si si si weer bi ñu génn ak bi ñu dugg nii foofu boo nekkee parent d'élève am ay lu mat cinq enfants yoo war a jëndal tamit day métti il faut que soulagement am si par rapport ak guvernement bi def si ay matuwaay yu loolu daal moo bu amoon daal dina tax daal euh, problème bi dina mën a wàññeeku quoi donte a jeex mais mu wàññeeku tuuti quoi. message bi ñu leen laajal rek xam ne affaire yi tamit daa métti tamit ñun jaaykat tamit ñu xam ne tamit mbir mi daa métti des fois bu nit ñëwee ci ñun ak ni muy wax ak kanam gu ñu ñëwoon yëpp ñun ñooy mën a comprendre xam ne affaire yi dafa métti moo tax muy waxee noonu mais xëy na melul noonu accueillir ko toog waxtaan ak moom ba jaay ko bu jaree wàññi yenn wàññi ñu wàññi bu bu xëy ne loo xam ne mënul mënul ñàkk ñu am nañu waxee ak moom boo xam ne lii kat mënul ñàkk dans ce cas da koy jënd mais bu client yi ñëwee war a jënd nga koy merloo wala yenn yi mooy loolu noonu instant bi daal affaire daal fi doon ñu ngi sant yàlla baax commencé na dañuy ñaan yàlla du bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah te yéen tamit li ngeen def nii lu rafet la parce que jóge fenn ñëw di laaj ay prix pour bëgg kaa wan ne pour bëgg xamal ne nit ñi kay parce que ñëpp mënuñu ñëpp mën ñoo fii te am na xam ne da leen di yónni ñu ñooy demal jëndi yaakaar li ñu jënd woon daaw moo am ren te nag buñu gisee comme li ngeen def ni ñu gis ko danañ xam ne kat affaire yi kat na kon ñuy joxe den gën a fàggu farlu xam ne kat affaire yi daa ren ñu gën a xam ni ñuy taxawee xam nga loo gis aduna daa am période màggal Tuuba am na période tabaski am na période képp koo gis muy liggéey am na loo xam si booy liggéey période boobu bu ñëwee daa am na koy liggéey ñun lii kaye lu muy seer seer seer seer mu ñoo seer seer ba yokk ci loo xam si ni day day lor nit parce que ñun parce que ñun ñun ñii di wax yow dañu am ay rakk yu jàng xam te tamit jàng xam xam na lu ci école xam na lu ci ay kay xam na lu ci lépp li ñu gaay naan ñan dañu ci dal déedéet demee fa noonu de wala asim li war dañuy li war dañuy jaay ak li xam si mënul ñàkk mënu lañuy jaay clients yi parce que ñun dañu am xol yërmande ak ak ak ak ak xam population fi ñu ci noonu la ñuy doxee nit ñi moo tax moo tax moo tax nga gis ñu teg ñun dañuy jaay livre yu dañu jaay dañuy essence comme ça nga indi ay livre livre daaw nga yor ay livre daaw soxla ay livre ren ñu essence ko boo defee yow boo doon jëndee livre 4500 boo indee livre yooyu noonu boo ko échangé nga nga joxe boobu noonu nga teg ci 1500 xam nga xam nga xam nga kon islam bi kon islam kon ñun ñu ngi dimbali parents d'élèves bi ndax bu ñu neexoon ñun tamit dañuy ne fi jënd ay livre ñu koy jaay te kon dañ koy jënd mais defuñu loolu mais même dafa dañuy ñëw di sax koo xam si dañuy indi ay ay cahier mu mu ah, day yore kay soxla ay livre dañuy jël kaay yooyu noonu pour dimbali jox ko ay livre mu ci li ci teg après nga dem boo kaay nga jaay ko mën ci am dara parce que bu dem mu dem ñun bu ñu sañoon loolu la def mais fii boo demee fenn ngay liggéey ku ñëw essence nga dem ba dem bu yàggee bu ngoonee boo ñibbi doo yóbbaale dara te ñun tamit daam ñu ñu bàyyi kër ga ak ñëpp moo tax ñuy def loolu mais xamal ne affaire yi méttiwul daal. benn élève dinañ ut ay tacleur yoo xam ne dañuy dem di ñu xëccal ay client yi ñuy ñëw tey jii nii mën nga ñëw waxaaleeg benn parent d'élève wala nga waxaaleeg benn élève mun la carrément que li ngay jaay nii dafa cher wàññi ko parfois mun nga ko wàññi euh, dàkk ci cent franc wala cinq cent wala genre ça dépend ci bagage yi mais pour xamal leen juste que bagage yi lépp lu mu cher cher cher jógeewul ci ñun hausse des prix yi jógeewul ci ñun genre grossiste yi ci ñu koy jëndee en loolu mooy cher raison pour laquelle ñun duñu def lu dul di mën a yokk suñ bagage yi pour di ci mën am dara di lancer aussi élèves yi que ñu gën a góorlu xam ni jamono ji fii mu tool dafa métti parents d'élèves yi sonn nañ mais juste que dañuy def seen wareef rek bañ kenn ku leen yàpp bañ kenn mer raison pour laquelle maa ngi leen di wax ñu jàng jàng yàggul cycle scolaire yàggul yàggul kon nañ def li leen war jàppale seen yaay yi su ko defee ñu mën avancer dans la vie. waaw paye yi moom boo ñëwee ñun ñu nekk si table bi ak ñu nekk si magasin bi ñoom tolloo même prix bi ñu koy jaayee ñun paquet kay fii kay ordinaire ñoo ngi koy jaayee 2000 francs euh, paquet kay 100 pages ñoo ngi koy jaayee 2000 francs kon magasin bi li mu koy jaayee ñun moom la ñu koy jaayee mais nag client yi duñu philosophie boobu dañuy jàpp ni ki ubbi magasin am kooku moom moo gën a mën a def promotion parce que gars yi parfois dañuy publicité laay jaayee alors que mën ngaa dugg si magasin bi génn di jooy naan man li ma jëndee dafa cher alors que boo ñëwoon si table yi dina gën a yomb parce que fii mën nañuy jaay paquetu kay 2000 nga ñëw ñu gis kenn koo xamante ne xam nañu kii nii li mu yor doyul mais mën nañ see tegg 100 francs wala 200 mais magasin prix la am bu la xësee mën la lii laay jaay loolu lay jaay parce que éléments yi ñu jël loolu lañ leen di former ni leen lii article bi lii lay jar article bi lii lay jar bu ko defee ñoom amuñu droit wàññi ñun nag bu dee ñun nga xam te suñu moyen bopp la ñu yor mën nañoo teggi cent franc mën nañoo teggi deux cent parfois nga jaay client ba pare mu dem ba war laa fay mun la ah manqué na nga ko jël yaay booy amul benn problème kon donc ñun ñëw si ñun moo ëpp bénéfice dem si magasin parce que magasin bi amul waxaale amul waxtaan te fii dañ lay neexal sax dañ lay jënd sa ndox bu tàngee ni la naanal pour neexalee la ko ndax mën a mën a jël li nga li nga li nga man de su ma sañoon su ma sañoon élèves yëpp dañ may seet si ndax man maa nekk si intersection bi nekk si angle bi si supermarché euh, Alain bi Euh, tudd Baye Laye daanaka client yu bari dañoo jàppante man kóllëre saa yu ufitu jotee dangay ngay jékki-jékki ñoo doxal seen bopp ba si table ñëw daan ne bi jaay ma ndax yaa ma jaayoon daaw sa li nga ma jaayoon daaw yomb na kon donc képp koo xamante ni bëgg ngaa gis sa bopp si fourniture yi sa doo jëndee lu cher doo dugg si magasin yi génn di jooy wala ngay génn di yuuxu bu ñëwee fii si table bi bu bu mu xeeb li fi nekk parce que yaruñu magasin mënuñoo duy fii ba mu fees dell li nekk si table bi la ñu mën a exposé jaay ko bu jeexee ñu dem jëndiwaat tegaat daal di jaayaat mais daal ku ñëw fii di gis sa bopp si njëg yi di xam ne fii seerul sa tamit yomb na